asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki pekkees ginnaaw bi nu leen nuyoo ñu ngi nii nag ci cosmétique Serigne Bassirou Niang ka nekk ca biir di kan Bassirou Dia dëkk Ndéeg Dia muy waajal korité deux mille vingt et un bii. waaw vingt et bii muy waajal korité bu mucc ayib manaan ko loo namu mu naan ma namu dara man basiiru Dia lépp lu sama client di soxla lépp lu ko yitteel ci sama marchandise dama ko koy andil di génnaat ak yéen ci beneen façon bu bees tàq ci korité deux mille vingt bi manaan ko waaw Bas yow mii yanji nga sa bitig bi macha allah mu naan ma waaw parce que dama bëgg sama ay client kontaan Basirou daal mu ngi nii ma ni daw gaaw a gaaw ca Basiru cosmétique waaw bëgg na ngeen kontaan yéen ay client ba tax na mu ni événement 2021 bi ci korité bi mënta yomb faaw day metti lool ndax da leen di indil bagage bu bees tàq ma ni loolu ngeen di seen ci fond d'écran bi moo di numéro Basiru ku ko bëgg a jot foo mën a nekk eh, asalaamaaleykum pekke sa ngay riir de pekke sa ngay wàcc de lii mbaa jàmm la bàcc jene et frère cosmétique waa kër borom daaru jenn ma naan waaw yow bàcc jenn yaa ngi nan mu ni ma maa ngi nii di waaj korité 2021 bi man tamit ma ko waaw ci yan facette mu ni ma waaw ay marchandises yi amul fenn laay indi ma naan ko jenn e frère ndànk rek méttiwul mu naan sama ay vitre sama ay diwukaay lépp loo xam ni jigéen daf koy soxla dama lay woo fii en même temps dama am sama magasin boo xam ni yemuma ci détail rek damay jaay en gros ko waaw ay jenn e frère wàññil defal ndànk mu naan ma waaw bëgg samay client kontaan ma ko ak lan naan ma waaw ku dugg boo génnee daal di bég lool jenn e daara ngi noonu ma naan leen dem leen gaaw a gaaw ku bëgg détail mbaa nga bëgg engro gros ngay jaayiwaat demal nga wuy ji bàtti jenn e frère waa kër borom daaru jenn ma cosmétique waa kër boroom daaru jenn ngay am nii manaan la yow mi ko soxla wooteel ci numéro boobu ngay seen ci fond d'écran bi bàcc jenn et mu ngi noonu nuyooti naa leen de fii ñu jëmati fan la bitugu Baay Faal bi Baay Faal bi gëm ca dëggal kooku kan la butu xéewal buti xéewal ku fa nekk mbuub ja et mbuub ja et nekk fii nga xam ni moo di Pékère moom it mu ni maa ngi waajal de maa ngi pere korité bi 2021 bi pere bu amul fenn ma ni ko ci nan mu ni ma indi naa sama ay vitre sama ay diwukaay sama ay bijoutier yoo xam ni lépp loo xam ne jigéen daf koy soxla mbaa góor ku mu mën a doon daw sil gaaw ma jaay ko ci njëg gu yomb kooku moy kan boutique xéewal boutique xéewal nag dafa jeexali wax ma ni foo d'écran bi ngay seen numéro foofu ma bu fa nekkul di nga fa fekk soxnaam kooku mooy mbuub ja nekk fii ci Pekes yàgg lool ci cosmétique tax na muy woo ay kiliyaanam naan leen maa ngi leen di pereer lu am solo ay diwukaay ay robb xale ay robbi mag ay jàllaabi yu am da solo ci korité bi ba tax na nag ma leen foo écran bi ngay seen numéro noonu kooku mooy mbuub ja vitre yaa ngi noonu dàll yaa ngi nii lépp looy soxla rek dawal gaaw ci 2021 bi mu ni korité bi mënul yomb ndax dafa bëgg ay kiliyaanam kontaan ndax bëggul kenn dugg génn di mer mu ni yéen rek ma fi tax a nekk jàmm rek laa bëgg ci yéen ak ngeen kontaan jom ja day bëri lool ña ngeen dee bëri jam la ñang mbaaloo jëlal sa way ku sant ñang fabal sa way we yaa ko moom yaa muy rëy rëy yaay borom ñang mooy moo ci amoon du ma kaste koog suñu yoonu suñu yoonu dëkk bu xat wii te ak parti bi ne ubbi leen

yow yow ak kan yow xanaa xamoo ah? fii la fii kë ati rajo la. rajo la fii rajo ngaay la fii du kër. ah liy tax kay mango gi meññ ba dee. yow koy seet. ati bëggoon na witt lu ma ndogoo rek. ah déedéet koy seet. Moustapha taf ko rek du waaw kay nag yaa ko laal. Hmm. ah nekku ci rajo bi. Moustapha déedéet ñëwul tey. ah Moustapha moom daf maa bëgg a wërloo ngaay ba ma tas. wërloo ma ba ma mbooyaan du ma ko gis. ah Moustapha de ñëwul tey ma. ah Moustapha ñëwul tey de. ba ma invité ndogu démb. Ah. ma ñëw këram. Hmm. ah waa gone ku ma laaj mu ni xaw ma kër ga ma dugg gone ga damaa génn ca biti. ah fii de Moustapha ñëwul tey de xanaa danga koy dangay dem seen nga fekk ji ko fa ba. doo ma ko wool. man aw ma yoruma téléphone. nga ne ko woon ay bay leen soxor. yoru ma téléphone. ay man nga ne ci radio bi ñak crédit. dedet ñàkkub téléphone. téléphone yoru mako sax ba yor crédit. yow no tuddu sax yaay DJ kan. man la DJ Kamori. DJ Kamori. Mhm. doy def musique lan. musique animation musique laay def. mbalax mbalax waaw. ay mais kàccoor nga ak sa bolak di di def mbalax. ah demal mu nekk fi. yow ngay witti màng bi mel ni yow. yow déedéet da ngay dem ñibbisa sax bala may woo xaj bi léegi. waaw ah, xajul de eh, yow eh, damay woo xaj bi de. ayca. aywa ah, ma sàmm. la. damay woo xaj bi léegi. xaj bi laa rus ci yow ne kon ma defal la bagage xaj bi rek laa tooñ tañal la mel ab unkunga wal ni léegi dootu ñaar man boo may woote dégg ma woo ci lu leer man tafa mi ci rajo may tong tongal ca fi lay liggéey fi liggéey fi liggéey fu ma dem ñu tong tongal ak képp sëñ bakk ndoy